du defu defu wut man yaakaar naa ñi nga xam ne ñoo nekk à l'origine de ça bu ñu doon defaat tey duñ ko duñ ko indi université te it foog naa ne nit ñi danañ xam ne kuy defar mooy juum kuy wax mooy juum alors liy njuum te laa ko jàppee foog naa duutu fi amati parce que place am du foofu université ñun ñëpp ko war a bokk ñu bàyyi wax ji parce que nit ku nekk boo defee loo xam ne lang sa jubluwoon ak la sa bëggoon nekkul loolu lépp loo xam ne dal na la si loolu war nañ nit ñi war nañoo xam ne yàlla moo ñu bindee noonu tamit ñu doon ay doomu aadama du ñuy malaak mën nga bëgg leen am safaan ba donc comme ñoom yàlla ñoom la teg si réew mi ñoom la ko teg si seeni loxo ah lu baax lañ fi bëgg stabilité lañ fi bëgg jàmm lañ fi bëgg fi ñu ko indi ba fi mu tegu mu nekk loo xam ne lu ñuy continuer la si loo xam ne ak yaakaar bi nga xam ne gis nañ ko si li nga xam ne ñu ngi koy wane di ko wax fi ñu toll nii.